Mojito Cocktail. Une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille. Free yep, yëpp ñu jëmbatee ko Sénégal si anam yo sell naturel. buy bi nag day wàññi tooy baax si yaram tayit yi leen sawarloo jus bissap bi oh. oh dina yok sen katan vital, si vitamine rek la ñi bëgg so naturel nak vito soo accident pour fête bu monti doon te baax lool si yaxu gune ak mag lépp nag si emballage civilisé Tour. ak jus vito da am choix te ñu déféré ko fi ci Sénégal si anam yu naturel te sel disponible partout au Sénégal vito fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 vito jus le jus fait maison asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi asalaamaaleykum yéen ñiy safoo Sénégal 5 te di seetaan dal leen ak jàmm ci seen site internet bi di leen jox. des informations en temps tey nag nekk vendredi 12 août 2022 dañuy ñëw ci li xam ne actuellement mooy rumeur dëkk bi moo xew ci dëkk bi loolu lan la mooy Dieyla ak Dan Dieyla ak Dan nag seen relation mi ngi bëgg a ëppi loxo gannaaw ba ñu publier benn vidéo boo xam ne ab anniversaire la woon Dieyla di sexal kooku di Dan ab gato ba daal di koy may benn bisu Dieyla nag démb génn na wax nee na nañ ko dimbali nañ ko ñaanal ndaxte ndaw la nekk ci yoon di dem gumba tal na leneen lu dul tëbiteen du samay wax waxi Dieyla la Dieyla nag nee na gannaaw bi dan di def ab anniversaire sa la dem ñu invité ko juste mu nekk xaritam mu toog di waxtaan ak moom bége bote waaye ko doon filmer daa xool la ka ñor sa vidéo ba la ka intéressé sa vidéo ba rien que rek pour yàq Dieyla Dieyla nag nee na dafa am famille am ay xarit am ay mbokk am papa am yaay ndaxte depuis ko vidéo bi génn ay mbokkam ak ay xaritam famille bu nekk la ko nit di woowee di ko laaj dëgg laa xam du dëgg Dieyla nag nee na sékkul dara ak Dan lu dul xaritam la frère la ci noonu tamit ci la aadamoo génne benn vidéo kii dévoile que laa ak Dan am nañ benn relation boo xam ne euh, gis nañ kii di Dieyla ak Dan tëdd ca sa benn ab hôtel fii ci ndakaar du ma tudd tur waaye nag gis nañ leen ñoom ñaar am nañ benn gis la bu dox seen diggante Dan nag ma nga simmeeku def yaramu neen laa def benn robbam ñoom ñaar ñu tudd sa ba di si nab Adamo nag moo génn vidéo bu video bi c'était le 17 juillet Adamo nag nee na Dieyla dañoo fontoo Dieyla dañoo yab Dieyla dañoo bëggee jàppee ab golo ñun duñu ay moroomam loolu du samay wax waxi Adamo la ba tey Adamo di dëkk ñun ci vidéo bi ni mu demee nee na ko ci mel ni dan ma nga soloon ab kilot def yaramu neen tëdd ak ca kaw lal ba kon góor ak jigéen bu tëdd cab lal nekk cab hôtel foofu lan moo fa war a xew Dieyla nag nee na Adamo day tojolaate Adamo day sosalaate Adamo jikkoom baaxul Adamo day wax loo xam ne dara wóolu ko ci moom jëy laa nag dem nañ sax ba di ko jiñ li xam ne mooy relation amoureuse moo kii xam ne moo di ménagère am waaye loolu yëpp daal dina ciy dikk joxe ci ay leeral nee na moom talu lu dul musique am talu lu carrière am kon nañ ko may jàmm ñaanal ko mu mën a avancer ci kanam moom Dieyla nag ci biir waxam nee na nag xale la bu ko benn mag tojol waaye bu ko benn sénégalais tojol Adamo moom songu na ku ne waaye dina xam ne ne ci man mii lay teeralee du samay wax waxi kii di xam ne moo di Dieyla la euh, jërë ngeen jëf mbokk internetu Sénégal 5 lii laa leen indiloon lu fi gën a fës dinaa dikkaat ak yéen ci yeneen xibaar ci yeneen information den déconnecté benn yoon dem leen Sénégal 5 jërë explosion de saveur dans une même et seule bouteille Free yep, nous ñu jëmbatee Sénégal si un yu naturel Poui bina nag day si yaram tayit yi leen oh. oh dina yok seen katan boole si vitamine rek la ñi bëgg so naturel nak Vito so pour fête bu monti doon te baax lol si ya gune ak mag lépp nak nekk si emballage civilisé te tour ak jus Vito da am choix te ñu déféré ko fi ci Sénégal si anam yu naturel te sel disponible partout au Sénégal Vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité kordamel, Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 Vito jus le jus fait maison